assalamu alaykum mbokk yi ñuy sétane ci dakar actu euh, mbégte lañu amaat di leen euh, fekkaat fi nga xam ni seen euh, site internet bi ngeen di topp tey nag ñu ñëw fii ci kër jean paul diaz nekk ku nga xam ni ku ñu ràññee trop ci ëttu politique bu sénégal euh, Ah, bu ñu fi ñëwee nag dara taxul lu dul eh, yi nga xam ni xew na ci bés yi ñu weesu muy doomam eh, Barthélemy Dias ñu jàpp ko ci anam yi nga xam ni xam ngeen ko yéen ñu fekk ko sax Dakaractu jàpp ko boobu ak léegi mu ngi ci yoon ñu koy toppee nag eh, outrage à magistrat ak appel à l'insurrection buñ koy wax ci olof nak moy dafa xeyna jëkëti ay cadre yo xamni ne tegginewul teg ko ci ñi nga xam ne ñoom ñoo yore justice bi benen bi ñu ne dafay wo nit ñi ci ñu xeyna ñu taal dëkk bi loolu nak xeyna nañ ci ñëwaat légui ak euh, Jean Paul Diaz bi nga xamni mom moy mooy bu goor euh, Jean Paul Diaz monsieur Jean Paul Diaz ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay sant. Euh, waaw comme xamna naa ko waxé légui ci bi ñuy nuyoo. sa doom Barthélemy Dias ñu jàpp ko ci anam yi nga xam ni xëy na yow xam nga ko tey ñu koy toppee ñaari euh, chef d'inculpation te muy outrage à magistrat ak appel à l'insurrection xëy na ci ca ca ca njalbeen nga sax li ñuy wax offense au chef de l'État bokkoon nag ki waaye dañ ko dindiwaat bàyyi ci ñaar yooyu yow ban jàngat nga am ci ñaari topp ñaari euh, tuuma yooyu nga xam ne tuumaal nañ ko sa dom bon d'abord abord euh, di leen remercier wa dakar Dakaractu bi nga xam ne ñëw ngeen à la source pour jël information bi di leen masawu aussi niñ ñu leen euh, ni ñu ci sen ay bureau euh, le vendredi saint bon kooku euh, vraiment je pense que war nañ leen ci masawu légui ci li nga wax euh Barthélémy Diaz, kilifa kilifa le fils Sénégal mu neex mu naqari kilifa le fils Sénégal du yëfu suma dom la kilifa la fi senegal te wajur yu bare bëggoon nañu nekk bayam wala nekk ndem waaw donc dañ ko wara considérer il se trouve que euh, le parquet notamment procureur bi fa nek muy Serigne Bassirou Guèye Gougouli dafa en xale bi daf ko en ken xamul lan la dafa dugg ci règlement de contact mom pour son compte mom et peut-être même pour le compte d'autres personnes waaw ce n'est c'est pas encore le moment de nous di alors Yangi ngi wax appel à l'insurrection mais un homme politique d'abord c'est faux Nous utiliser euh, insurrection De il y a une émission non parce que waxu ci émission nous quoi wax na dans la rue nous nit ñi émission dans la rue mais dans la rue mais n'en na pour marche Nous n'avons que pour citer n'en na que pour l'aimer. protestation acte de protestation le syndicat est venu dans la rue il a dit qu'il faut descendre dans la rue et moi je dis par exemple avec les autres leaders du Sénégal que besoin Indé, la loi euh, sur le soi-disant parrainage le terme est tout à fait impropre mais ils sont pas le terme besoin assemblée nationale mais que le peuple descende dans la rue pour protester mais c'est nous le peuple peuple qui en souveraineté donc le peuple doit descendre dans la rue je vais signaler que Manko au Sénégal a communiquer, communiqué il y a peut-être deux jours voilà un jour pour warner le peuple bi dans la rue le 20 avril et le 5 mai donc qu'est-ce qui change Moi, il a parlé de descendre dans la rue alors lorsque nos politiques, mënatul aux populations et à ses militants descendre dans la rue là, lay donc ça tient pas debout ju wax nga ko sànq dañ ko ci yokkaloon kooku source bi noonu dañ ko ci tegaloon offense euh, au chef de l'État xam naa ne bi ñu gisee ne que ridicule bi egg na benn niveau ñu daw mais en fait ñun ci information ñu am chef de l'État moo leen ne moom daal buggul dugg ci seen affaire yi ñoom nañu dem seen affaire yi te génne ko ci mais kenn def kenn def ko offensé ah donc léegi nga naan euh, affaire bi offense à la magistrature Nous, outrage à la magistrature mais d'abord le procureur là dit que suis outragé Barthélémy Diaz Je suis outragé man mon outragé un catholique Bon, xam ne vendredi saint Je di mënu arrêter. ko di ko arrêté man ans on me l'a fait prédécesseur de mon mais il m'a outragé donc c'est la poursuite quoi Yo man vous bu contre président de la république wala ma le procureur fille te mënoon naa ko nekk si j'avais voulu ñëpp xam nañ ko donc mais d'où ma Julie Veille au tabaski wala veillu korité wala sax euh, jouru tamxarit wala Tam tamxarit mais il faut avoir de la culture Ni da une culture pour ramener que Pâques c'est la plus grande fête pour les catholiques donc, il a outragé même les catholiques, ce procureur-là. Il a outragé les catholiques. Il faut la kay tek. Ba paré, xam nga kéro bi muy génn, dafa génn ci le li. Mais mu ngi wor. Génn ci chemin de quoi Mais yalla mo def mu ñew ci yeen directement, ndek ñu ko doon xaar ci euh, buntu kërëm. Déjà, dénga Il yow nan ngay santané pour ñu japp un citoyen chrétien catholique le jour de, du, vendredi saint kooku outrage voilà. Il nous a outragés. Mais Légui, léegi ouais. waaw. waaw euh, euh, est-ce que du yaa ngi wax euh, procureur moo leen outragé parce que mu ngi jàpp Barthélemy ci jour bu nga xam ni xëy jour boobu ñi catholiques yi chrétiens yi ñu ngi màggal li ñuy wax vendredi saint mais aussi est-ce que gisoo Barthélemy Momo, mel ni ku bëggoon ñu ko parce que le jour non ben, ben seulement avant muy ñëw si ñu am na des fu mu jaar wax fa ay des bi mu ñëwee si des kàddu qui sont tar est-ce que du nous ni moom moo bu fekkee euh, kàddu yu mu wax ci yéen bu fekkee nous bu mu wax ci yéen. Mhm. dégg nga moo qui a tar kon nag yu mu wax amul importance parce que des génn dem seeti dem yaayu Khalifa Sall waaw pour euh, partager le gi ak lui, waaw en tant que don donc on dit les propos outrage à magistrat mais les magistrats bien sûr qu'il ne s'agit pas de tous les magistrats mm. bien bien sûr forcément mais quand on dit que dans la magistrature il y a des brebis nous, nous du ñu quand on dit dans la magistrature quand on dit que la justice la justice est naufragée nous, du nous quand on dit que euh, euh, la, décision, là, ce jour-là, la décision qui a été prise, c'est une, une, décision lâche, avocat à condamnation dit que c'est lâche. Mm-hmm. quand on dit que euh, la justice mais un ministre A juge Nous directement traité de médiocre mais lu tax jàppuñu ko quand un vice-président de l'Assemblée nationale tey juge kooku noonu dafa deful sax exception dafa waxul sax yana si yanaa un leen saaga traiter dégg de tous les noms d'enjeu N'est que ce sont des corrompus Filon... il n'y a pas de guise. tax jàppuñu ko etc. cetera alors franchement yenn yi bañ a mën a dégg français da pour daan li mu wax dañ ko outragé mais Barthélemy lan la wax dafa que kooku ci français laa ko mën wax parce que ci français la ko waxee. dafa nekk euh, léegi dafa am ay prostituées mais nekkuñu rek du ñi nekk ci tali gi rek ñii di taxawal ñoom rek ñooy prostituées mais dëgg la du foofu du foofu rek. prostituées mooy ñi jaay seen bopp. ñi jaay seen bopp voilà ma ngi remercier ci bi parce que xamoon ban terme ni ci wolof ñi jaay seen bopp mais ñoñu ñoñu di def loolu nekkuñu rek ci tali gi y a la prostitution clandestine moo ñu nek des fois ci ay kër wala ci ay place ci ay école wala yu yeneen place mais prostitution clandestine la dégg nga amuñu carnet mais ñi am nañu carnet bu démé ba ne bu démé ba te prostitution dama lay yëgal prostitué. vous nit au Sénégal du xas du Saga, du outrage mais parce que la prostitution est légalisée métier le prostitution métier le, et c'est un métier légalisé qui est légal au Sénégal Qu'on a loolu lañ je suis homme politique disons ça, politicien là. tous les jours que Dieu fait politiciens yi ay sàcc la ñu ay ay corrompu lu ñu lu may tëbëkk di dal beaucoup ci bokkuma ci lu may tëbëkk di dal donc yo bu ñu il y a des prostituées dans la dans la dans la dans la magistrature qui baissent leurs pantalon Yo bokkoo ci lo ci tëbëkk di dal maa ngi signaler que y a un magistrat il est toujours magistrat bataille. c'est le juge Dambla il est toujours magistrat jusqu'à l'heure où je parle Waouh il faut réduire le statut de la, la magistrature. Il est magistrat. Il dit que la magistrature a démissionné. Mais Ça veut dire la mission qu'on vous a confiée, vous ne voulez... Et il n'a pas fait d'exception. C'est après, dans les radios qu'il a dit, il y en a qui travaillent, il y en a qui... Mais bien sûr que ce n'est pas tout le monde. Bien sûr que ce n'est pas tout le monde. La magistrat, la justice lui il a dit la justice a démissionné ci dafa ne ah. justice bi dafa daf dafa démissionné maanaam liñ ko sant liñ ko dénk mhm. defatu ko moo tax moom muy dem mhm. mais loolu loolu loolu loolu loolu du outrage dégg nga mhm. alors s'il y a dans la si si on dit qu'il y a des pourrigaleuses il y a des qui parce que les prostituées dont on parle c'est des êtres humains ay nit lañu nee naa la suñu ay jigéen lañu suñu ay yaay lañu suñu ay ay ay ay doom yu jigéen lañu dégg nga mais nous, ay nit humains, nous être nous familles, dañu am famille am mais man nous ñoo instrument quand on dit que la justice est instrumentalisée ça veut dire qu'il y a def instrument comme big le euh, morceau ou le morceau de ils acceptent ça ils acceptent des instruments waaw euh, ah, mais mais il faut quand même comprendre. Ben ko jàppee ak léegi. waaw euh, war def euh, semaine ak lu teg. wala sax le mu mat semaine. yéen yan condition ci la Barthélémy Dias nekk yéen ñi nga xam ne yéenay. alors loolu jàpp ko ci temps boobu yëpp loolu outrage lañ ko def dañ ko outragé outragé famille parce que justement on lui a interdit dañ on a dañu fexe ba il n'a pas passé les fêtes de Pâques mais c'est absolument outrageant lii pour dem flagrant délit

conditions au début les conditions nous nous, les conditions étaient normales correctes mais là binique ñu ko jëlee entendre ko L'une que ko doon et Rebus loolu yëpp ci humiliation la Bassirou il da def attention dafa mën a humilier nit na bàyyi humilier nit waaw na bàyyi humilier nit pour le moment conseil boobu la koy jox parce que kenn ragalu ko ah na teg ci boppam bu baax kenn ragalu ko Deng. man bu ma bëggoon nekk magistrat ñëpp xam nañu ne je l'aurais été waaw procureur je l'aurais été te tey j'aurais été en grade plus élevé que lui na bàyyi di humilié nit alors ce qui s'est passé ñëw na entendre nañ ko ñu yónni ko rëbës pour lan mais jox leen ko convocation mu ñu àjjuma loolu pour suufeel nit la wàcce nit mais taal gu yàlla taal

magam bu la veille vous avez kon mu visite de nga te dafuñu visite fo nga palais de justice pour tiko nga donc du visite alors nous, nañu nous, ko nous, évidemment de tout temps nous ñi xam nous ay mais lu ñuy nous, dañ ko wara sécuriser Barthélemy détenu politique la politique prisonnier politique la heure bu may wax nous, du nous, n'importe quoi du n'importe quoi alors bi nous, nous ñu ne non da ngeen ko fi n'est-ce pas Nous jox ko mais nit ñi mënuñu ko def ko kenn mësu ko def kenn du ko def bu ñu ko def kay ubbi kii bi ci ay poison wala n'importe quoi mu Nous nous ñu ko def alors donc ñu ne leen woo ko mu ñëw jël ko wala permettre ñu ñu jëtte de la main à la main évidemment bu boobaa moom bu ko jotee daf kay ubbi contrôler contrôlé mais loolu lañu ñu def naka jekk dégg alors defuñu ko effectivement bi muy dem pièce d'identité bu mu yoron passeport la ñu da fay voyager passeport nga wane passeport rek comme pièce d'identité ñun da ngay voyager évidemment de fii dina dina dem yalla mo def dafa ñëw rek dacci momi tam dafa ñëw rek dacci mais ça n'avait rien à voir elle a pas demandé personne n'a demandé de visite donc le du alors le colonel qui est le directeur de l'administration pénitentiaire dama koy ñaan mu mandu itam parce que on lui a remonté des contre-vérités li ko on lui a remonté des contre-vérités kilifa si il a un son de cloche Il da a am son de cloche rien ne lui coûtait pour m'avoir au téléphone c'est facile il suffit d'appeler n'importe quel journaliste il suffit d'appeler la police n'importe qui ñu de téléphone na ma alors il y dit que ci prison bi dafa repas copieux et de qualité etc. mais si c'était vrai ça se saurait si c'était vrai ça se saurait depuis quand l'administration pénitentiaire a assez de moyens financiers pour nourrir les gens les familles de ont ay Kermassa, banlieue bi di indi di le repas D'accord mm-hmm. mais il faut pas muy wax ne xamee pas. Et puis de toute mhm. façon les médias mhm. parce que nous bon mhm. on a eu raison de ne pas avoir confiance mais carrément mais vous le que que que que dans l'administration que l'administration pénitentiaire a a a a dénombré plusieurs morts qui aussi bien par balle que que par maladie etc il y en a eu à l'hôpital etc il y en a eu hein? alors donc je pense que je lui demande man xaw mom je lui demande non parce que nak, si ñu dans le débat nous dugal dans le débat voilà donc ce qui s'est passé là n'est pas normal Il faut que recevoir repas familial dégg nous consommer normalement et il y a des traditions de tout temps alors on te dit oui maintenant on a on a changé le règlement il n'y a rien à changer il n'y a rien à changer c'est un prisonnier politique de oui, où on ouvre une enquête à, à, ce propos. Bassirou Boboudé, le procureur. Wadi Wadi Wadi nous ray sous son ordre d'ailleurs. Bu euh, euh, non pas pas pas moom moo tu vois on va dire encore c'est-à-dire mon moo ou alors le service bi ñoo euh, au commissariat du port mais dit des dee faux. ani ani dossier boobu dégg moom mu génn naan waa ji dafa xam ma ko yow musoo fa dem c'est après qu'il est parti musoo fa dem foofu ken musu fa xa dem mais mun nañ fa rey nit man tuuti ma dee fa dégg nga fii rëbës de na mutinerie bu am ñu rey nit ani dossier boobu ba parce que xam na ne mënul sori ci dossier boobu dégg alors nga bëgg naa ñun ñu bàyyi suñu nit foofu pour ñu di ko rey le fait de mettre Barthélemy là-bas dégg c'est humiliant c'est est outrageant waaw alors kenn kenn y' a pas eu d'outrage à la magistrature fàttali naa ni ngay wax expression bi. Euh, outrage à outrage à la magistrature ce n'est pas vrai. tout le monde critique la magistrature et les gens réagissent en fonction de leur tempérament. ay nit mun nañu daanu jooy daanu crise ñeneen ñi di jooy mais keroog googu mais façon sàggan day bu nekk wax nañ ko fa dégg nga et puis le peuple lui-même bi le peuple bi nekkoon ci salle bi bii ñu je bii waa ji balaa bi. peuple bi moo jug mab di ko fekki moom juge bi dëgg la wala du dëgg ah non donc réaction la. heureusement les forces de l'ordre ont arrêté même les avocats de l'État dañu jaar par ci ginnaaw jaar foofu dem seen yoon. foofu sax dafay am ñuy wax ni euh, xadar bi nga xam ni Barthélemy Diaz am na ko ñu dañuy wax ne baayam moo est-ce que du sa xadar nga jox Barthélemy ba. Euh, waaye bu ñu kenn dama ñun ay on n'est pas des femmes nous sommes des gens énergiques nous ne sommes pas des femmes. Euh. dégg alors donc problème bi loolu non bon nekkee xam nga. il faut pas nit ni nous, on est des sénégalais sénégalais beaucoup de jox dara beaucoup mais respecté c'est tout. parce que de toutes les façons. de toutes les façons nous ñu sauf ñu nous ko mais bu sommes mu yàgg yàgg ñoom ñooy toog seen kër di gis Barthélemy ci biir télé ñoom ñuy du leen ko ñu tribunal flagrant délit. waaw. euh est ce que yow nga nek way jurom est ce que gis nga ni ñi nga bokal eutu politique bi moy ñi nga bokal manko taxu senegal est ce que gis nga ni taxaw nañ la deug deug bi sa biñ jappé sa dom ak légui euh, non c'est à dire que xam nga biñ ko jappé mhm. biñ ko jappé luma mëna excuser lu ñu biñ ko jappé mhm. bu su vendredi saint lawon euleuk sa mu am lamb lamb lutte mhm. senegal ñom bo waxé lutte ak woy fetch ils sont là-dedans. Donc, on est un peu ludique, il faut dire. Donc, l'on lui a capté attention au nini. Le jour suivant, c'était le jour de Pâques. Donc, c'était le jour de fête. Le lundi, c'était férié. Mais le, le, le, le, le manco, ben, ben, ben, ben communiqué. Je ma lire le d'ailleurs, mhm. tout ou de me lire le tout Manco, tu communiqué, tu as fait. Tu les médias Tu ci xolam lu jugee. te wax yoyu amul ben différence ak ñi di ne que la justice a démissionné ak ñi di brebis dans la magistrature amna ak ñi di que par certains aspects judiciaires ñun euh, euh, euh, système judiciaire bi qu'un na un instrument pour combattre les adversaires politiques jox y la yenen exemple c'est tout wax nañ ko te y a des jeunes yo xamé ci internet bi ci ci YouTube mais nous, nous ñu ngi ngàññi affaire je pense qu'il faut être sérieux il y a des choses vous que le procureur ah, des ut sujet a na sujet yu ëpp importance ni di enlever khalé yi di leen saraxee dégg nga ñii di def yeneen yeneen kii ñaawtee fii ñu ngi fii kenn waxu ko dégg nga kenn alors je pense que il vaut mieux que nous ñu régler le kiki. mais lu mun a arrivé qui ci prison bi Mon mii Serigne Bassirou Gueye je le responsable. Mm, Sank dañu wax ci offense au chef de l'État yow nga né euh, xëy na président sax mo wax nañu nañu rocc loolu nonu man ma maa suma ay information ñoo ma ko jox léegi moo ne nañ koy gëné mu bay mo bëggul dugg ci affaire bi mais d'accord nañoo la mais non en fait li ci bëgg wax aw ma ci firnde pire mais man itam am na information mais li ñu bëgg wax fofu rek euh, euh, xëy na rocc bob nga xamni rocc nañ ko offense au chef de l'État hmm. est-ce que nekkul bëgguñu ko jox benen chance pour mu amandé pour xeyna euh, baña té nek ci télé yeeg radio yi di yuxu di saga est-ce que yow jàngo dafa ci saagul ci télé man man ni may waxé ni mhm. ba télé mi moma gëna calme buy wax man ni may waxé ni ba télé mi moma gëna calme buy wax lolu du dëgg dégg li am té des c'est que il manque la les discussions le dialogue lolu mom manqué waaw loolu mom manqué boo que procureur nga dégg nit wax nga woo ko nga ne ko mais Sabara ak yow lan la mais entre Sénégal yi wax magam rek la comme ni man ne moom bi magam la peut-être sax nijaayam la donc donc euh, euh, Barthélemy rakam la lu muy lu muy lu mu tax mu forcé contre xale bi su fekkee am na dara na discuter la que magistrat yu ak Barthélemy ay xarit lañu dañuy discuter man gis naa ko muy discuter xaw ma fan la ko xamee gis naa ko muy discuter avec l' agent judiciaire de l' état man xaw ma fan la ñu xamante dégg nga donc loolu la il faut pas muy jaay doole parce que de toutes les façons boo leen ko tëjoon mille ans de kaso sax dana mës a génn waaw te lu yàlla bindati moom dana fi am.

loolu lañ loolu lañ ko toppee ba daan ko juróomi at yoo xam ni war na ko tëdd ak 5 millions yu nga xam ni war na koo joxe yoo xam ni sax du dommage waaye amande la euh, yow nan nga gisee verdict boobu ak ban jàngat lañ lañ ci war a def. d'abord dama lay remercier lu tax ci li ma relancer ci kii bi foofu laa waroon a commencer. Mhm. d'abord di masawu euh, suma suma jeune frère euh, Khalifa Sall. Mhm diko wax né professeur ndax madame Diaz jàngale nako bi mu nekké lycée euh, Blaise Diagne mhm. madame Diaz kérok bi verdict bi génnee madame Diaz dafa tok di joy fi ci kër gi ba domo ma suma taw bu jigen gi diko ko fi la tok di joy waaw donc pour te dire donc ñu ngi koy masawu affaire bi diko masso wa wa wa juromi diko di ko et cetera diko wax xamal né que injustice day am rebe du yàgg dama koy fàttali moom Khalifa président Alpha Condé bi Guinée diapon nañ ko fii kon euh, tëj ko kaso condamné ko à mort affaire bi évoluer évoluer a bu génn tout donné ne dana jiite Guinée ñëw na ba jiite na Guinée di ko wax madame euh, euh, Johnson Sirleaf première femme chef d'État élue en Afrique tëj tëj nañ kaso au Libéria il yi dem changé parce que euh, parce que ñu bari dañu yaakaar bon la justice t'a condamné c'est fini quand nga mais dans ces pays-là il y a eu des coups d'état militaires y a disons le système institutionnel a été bouleversé donc on sait jamais comment nous yi fu donc madame euh, Johnson Sirleaf elle est devenue présidente du Libéria sur deux mandats Du Kowar, wax du Kowar, sur wax suñu Nelson Mandela 27 ans de prison mu n'est le chef de l'État de de d'Afrique du Sud le seul Africain Mohamed il a sa statue dans le jardin du Parlement euh, britannique dégg Agnienen, peut-être j'y pense pas le président Habib Bourguiba etc. Il et cetera génn président kon a bu mu découragé bu xadi xaddi bu mu décourager lepp mu na ko def dans la dignité rek voilà donc Mon fofou l'a On njëkk commencé. légui procès bobu mais il faut taper là... mais nous, nek néna le on oh, ça a été qualifié de toutes sortes de de parodie de justice de n'importe quoi et ce qui m'a fait mal man le le Lamotte la xawmako ni mais diko gis de loin rek j'ai eu de l'affection pour lui franchement et franchement de tas car parce que mënoon na ci génn ñu koy xalabal ba keroog muy génn àdduna ni ñu xalabalee Kéba Mbaye ni ñu xalabalee Isaac Foster ni ñu xalabalee euh, kii ni mu tuddati Assane Bassirou Diouf boo xamee nekk na suma patron ma liggéey ak moom pendant 3 ans Assane Bassirou Diouf dégg nga nekk nit ku baax procureur la woon un homme du parquet nit ku jub nit ku baax waaw donc euh, Lamotte a raté une occasion franchement te man ça fait mal pour lui évidemment Bon, examiner procès nous ni mu ou wax une fa doon wax ak décision la mode a quand même résisté je lui tire mon chapeau La mode a quand même résisté quand je dis la mode, la mode ils ont quand même résisté mais le petit tout tout lu descendre pour nous continuer à résister il faut ah, que nous y mais vous la est-ce que tout parce que c'est le monde qui non la mot nous résister quand même. Mm, mm. point de vue nous ñu la résister quand même parce que pour la mot que ba avons a pas de détournement de mais il fallait être courageux pour wako. Mm que l'État amuloo dara lu muy def ci procès bi mais il faut avoir il y a un minimum pour wax ko dégg mais le ressenti maanaam yow ni nga recevoir une nouvelle bi mais nan ngay réagir wax naa la ko sànq am na ñuy jooy am na ñuy daanu crise am na ñuy xalangu ñëpp a sàggandey foofu ce jour là ñëpp laa wax am population bi ñi nekkoon ci salle bi dañu màbb fekki leen kooku xam nga ko kon réaction la ceci dit nous sommes intellectuel nous Donc, réfléchir boy analyser la mode quand même am na fu résister il aurait dû aller jusqu'au bout vous vous jox un exemple bu la mort condamnation à 5 ans dans un an je te garantis danañ ko xalamal jusqu'à la fin des temps parce que l'essentiel Il y a yow nit ki tu dis qu'il a escroqué mais tu ne dis pas à qui il a escroqué il est escroc mais quand il est escroqué est escroqué. Il escroqué Il est escroqué. Il est escroqué. Il est. escroqué. Il est vraiment c'est pas escroqué. Il est mais man est escroqué. Il est de justice est escroqué. Il décision escroqué. Il d'ailleurs escroqué. Il est enfin Il est escroqué. Il est escroqué. Il que exercice Il est escroqué. former étudiant en droit c'est de critiquer les arrêts, madame, des décisions des cours d'appel des cours de cassation on appelle ça le commentaire d'arrêt peut-être que les à gars, mon tour, j'en sais rien mais dans le temps à mon nom, da juge dañuy jël cette décision yow étudiant nous ne pas, critiquer Nous ne le critiquons. c'est ça Une décision de elle est inacceptable c'est ça la vérité. Mm, alors je disais hein? mm, mm, tey ñu tëj ki nga xam ne moom Khalifa Sall. waaw euh, mënoon ci candidat potentiel yoo xam ne il est toujours candidat potentiel. Ah, tout à fait. voilà fa foofu laa bëggoon est-ce que yéen manko dafa am ci yéen ñoo am ba léegi eh, ci ginnaawam ngeen topp wala da ngeen di am beneen plan B ku mel ni Idrissa sec wala koo xam da ngeen di. topp ci ah, ginnaawam man de man Jean Paul Diaz aw ma plan B aw ma plan C aw ma plan D aw ma plan zéro d'ailleurs fu mu nekk euh, Khalifa Sall peut être candidat et il sera, Inch'Allah, candidat. Le problème, il faut que les gens parlent, il faut que les gens se parlent. C'est à force de ne pas se parler que les gens font des bêtises. Mais là, les changer Khalifa Sall n'est que candidat. une dimension internationale. Dans les fatigues que Khalifa, à l'international, il a décidé de démissionner de certains postes Nous, démission donc c'est une personnalité respectable le monde entier a parlé de ce procès là je Khalifa un candidat Il faut que manko un euh, regroupement pour dem aux élections législatives législatives il d'un point de vue politique maintenir manko pour mener des actions politiques. Mais Manco n'a pas discuté de candidature. Même si j'étais un Tchahankat, demain, demain, déclarer sur ma candidature, comme nous Tchahankat, tu barré. Mais, comment vous déclarer sa candidature Vous déclarer sa candidature, ni andalio, andalio ni Andakenen, Andakenen, ni Anda même peut-être à pouvoir, pouvoir, Parce que ce n'est pas exclu, peut-être aussi, j'en sais rien. Bon, donc, Khalifa man na nekk candidat heure bu ñu wax bu élection yi nekkoon suba mu nekk candidat. yow ndax pare nga pour topp ci ginnaawam bu fekkee ni candidat yi li ma la wax nee naa la egg guñ fa egg guñ fa. Mhm. fu mu nekk ni dama koy jàppale pour mu mun a génn prison parce que liñ ko fa teg du yoon du dëgg. Mhm. beneen bi mën naa ko jàppale. Mhm. rien ne voilà benen bi ñuy wax euh, parrainage bi nga xam ni système boobu nga xam ni ñu ngi koy waaj yóbbu assemblée. pour voter projet de loi bi. am na sax ñuy wax ni xëy na bu ñu ko tegee ci table ji pour euh, génne ku mel ni Khalifa Sall wala Karim Wade yow est-ce que jàngat boobu nga ci def. mais jàngat boobu laa ci def plus pire que ça pour génne ñëpp la mais yow Macky Sall mais ñun ñoo ko fal man Jean Paul Dias maa ko fal ak Macky 2012. Macky 2012 Jean-Paul Dias ah ñun ñoo fal ak yeneen parti yi ci nekkoon BCG ak yeneen parti ci nekkoon ñoom NIDA et tout ça là dégg modèle tout ça ñun ñoo ñun ñoo ñun fal. ñun ñoo fal du APR moom kenn dans que Macky Sall mësagul dem élection fii moom kenn APR depuis bu mu dëgg duggee ci langue politique moom kenn APR mu su fi dem kii dekkal ngoon la defoon coalition la après mu def yeneen i 2012 etc. On ñoo ko fi mais biñ koy fal mais m'a dit, c'est li may def ce n'était pas dans le programme yoonu a te kenn tu ñun imaginer wu ko te yaa ngi gis ñu bari ci biir euh, benn bokk yaakaar ñu ngi ñu ngi même si c'est à des mots avec des mots euh, veloutés ñu ngi ñu désavouer affaire bi mais nous du démocratie toute démocratie parce que mon féco, mon falu il n'a pas vécu un système comme ça Nous, nous ni et pour ça tout le monde demande aux populations de descendre devant l'Assemblée nationale et de protester le moins démocratie Nous appel à l'insurrection nous, hein? ah dem compétition bu gagné ñu xamé gagné na bu ñaké ñu xamé ñak na man mi di wax ak yow man rek ma fi taxaw ñefé avec des arguments pour qu'il fasse un mandat de 7 ans deug donc mom mi néw ndey def mandat de 5 ans té def na 7 ans mais dafa won taxaw na né mom man 5 ans la bëggon def def na 7 ans doy léna dem na loolu la wara def au lieu de faire des choses comme ça parrainage c'est antidémocratique anduma ci duma ko soutenir dire

diñu diñu diñu diñu encourager waaw di wax Barthélemy fi nga téye téye ko dama wax nii rek parce que il faut ma wax ko devant les gens mais man xam naa la waaw fi nga téye téye ko sa jikko maam bi nga am du du suma bopp sax sa jikko maam bu nga am téye ko téye ko un point c'est tout lu yàlla bind ci yow Inch'Allah dana am ce ne sont pas des des arrestations ridicules comme ça des séjours en prison séjours en prison bien, c'était pour t'humilier mais ceux qui veulent t'humilier que le que le sang de Jésus-Christ les humilie tombe sur eux et sur leur famille voilà waaw baax na kon mbokk yéen a ko déggandoo noonu muy kàddu yi nga xam ni Jean Paul Dias yëkkati na ko léegi jëmale ko ci li nga xam ni mooy euh, jàpp bi nga xam jàpp nañ ko doomam bi di Barthélémy Dias ay wax nañ aussi ci yeneen sujet kon xam naa rek dañ leen di jox dikk daje ci yeneen i jataay di leen jaajëfal